bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ginaaw bu ñu sante buur yàlla subhanahu wa ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ali imran tv delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ci ndimbalu technicien yi ñu àndal ci wàllum xarala gi tey di dimanche di al ahad mu tombeek juróomi fan ci weeru rabiul axar tombeek gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 1444 ans xanaa di leen fàttali ne rek dese na suñu diggantek weeri koor 145 jours saa ilina mawla jalla wa buy ñëw yan nañu fi fekk buy dem yan ñu fi bàyyi waaye lépp lañ fi jaamu yalla yan na ko bur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi tey di dimanche mu tombéeg juróomi fan ci weeru digg gàmmu ñaan ba ñëw ci almunaq bu ñuy wéttalanteeg mbokk yi fii ci Ali Imran TV mooy astaghfirullah la la ñaan bi di tekki mooy yow jaam bi del sàkku njëggal di sàkku sutura fa sa boroom ndax mooy buur bu mag bi nga xamante ne amul benn buur bu moom moo fi nekk di sax be fow waaye taxawee jëmmam ju sell ji taxawee mboolem melokaanu mbindaafoon yuy dukkat ci kaw suuf si wa atuubu ilayhi nga tuub tuub bu sell jëmale ko fa moom yanu yàlla boole defal la ñaan bi di tekki amin ya rabbal alamin mbokk yi na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis ba ñëw ci suufu ñaan bi mooy qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenunti yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam abshiru haada rabbukum qad fataha baaban min abwaabi alsamaa'i yubaahi bikum almalaa'ikata yaquul unduruu ila cibaadiya qad qadaw faridatan وهم ينتظرون آخر رواه ابن ماجه mbokk yi la bi di tekki suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñuy nginil ba nekk ci joxe farata toog di xaar beneen farata yow jullit bi yow jullikatu mbooloo bi yow mi fréquenté mosquée yeeg jàkka xamal ne saa yu farata toog di xaar beneen farata ngeneel ba fa nekk moom lañu suñu yonent bi di jàngal ci hadis bi alayhi salaatu wassalaam abshiru haada rabbukum yonent bi daf ne saxaaba yi ne bég seen borom bégal na leen mbégte bu mag moo jóge ko fa sama borom ñëw ci yéen ndax dañoo ubbi benn buntu ci buntu asamaan yi yubaahi bikumul malaikata yàlla di génne foofu ay malaika ay malaaka di génn ci buntu boobu yàlla di leen wax ne xool leen sama jaam yi dañoo joxe farata ba noppi toog di xaar beneen farata allahu akbar yàlla di leen bëgge yàlla di bëgge jaamam yooyu joxe farata yu julli toog di xaar beneen farata yàlla di leen bëgge di leen tiitaroo ci malaaka yooyu di leen wax ne xool leen sama jaami julli nañ timis toog di xaar gee julli nañ gee toog di xaar fajar wala julli nañ tisbaar toog di xaar takkusaan bi maanaa xamal ne yow jullit bi saa yoo joxe farata toog di xaar beneen farata loolu yàlla dalay bëggee yàlla dalay bëgg ci biir malaaka yoo xamante ne day ubbi ab buntu asamaan di wax malaaka yi ne xool leen sama jaam yi ma ngi leen di bëggee di kontaan ci ñoom yi nit na ngeen bëggee seeni geste ba ñu def nii joxe farata toog di xaar beneen farata na ngeen ci loolu na ngeen ma bégal sama jaam yi waaw yàlla suñu boroom yonenti nee na daa ubbi buntu bu nekk asamaan di fa génnee ay malaayika malaayika yi di bégee jaamu yàlla yoo xamante ne dañoo joxe farata toog di xaar beneen farata daa xokbar ci biir loolu manees nga siy déggee man nga siy def ay rakaat ay nawafil mën nga ci ubbi téere bi jàng say jukki waaye mun nga ci téye say kurus wala la ngay tocc toccaaral di gémmu tudd yàlla waaw toog di xaar beneen farata gannaaw bi nga joxee farata ba weesu loolu ngénneel la boo xamante ne bu ko jullit ñi xamee wallahi dañuy dëkkee di toog ci jàkka ji di xaar beneen farata buy ñëw gannaaw bu ñu joxee farata bu jiitu yal nañu ko yàlla kattanal yal nañu ko yalla man loo ja'alana allahu wa iyyakum min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana mbokk yi tey Ali Imran TV lii lañ leen andiloon ngir ñu fas yéene ko wittalantik yéen saa ilina mawla jalla wa ala an yubarik lana fi umrina kulluh nas'aluhu jalla wa ala an yaghfira lana zunubana amin ya rabbal alamin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن نسألك ألا تحرق أجسادنا بالنار Thank you.